waaw Ouest euh, fii ni problème bi yëpp fii la buntu yaa ngi ko gis buntu ci euh, problème bi yëpp fii la ndax taw bu ndaw bi mu taw yaa ngi gis ba léegi tey la kat euh, ba léegi ndox mi demagul parce que ONAS ñoo waroon na ñëw vraiment kiiri lii ba pare jël ci ay solution parce que bindu nañ leetar daaw gis nga ko ni mu meloon ñëw nañ fi ne danañ ci jël ay mesures mais mesures yooyu ba léegi kenn jëlagu ko léegi nag gis nga bi mu tawee taw bu ndaw bi gis nga ni mu mel fekk ne regards yi kiire wuñ ko mais ñun tant que délégué de quartier wax naa ñi nga xam ne ay bonne volontaire lañ ku mel ne Joxaani ak euh, monsieur Sambou pour ñun jël nañ suñu engagement commencé ko tey ñun ñu kiireel ko suñu bopp parce que quartier bi ñoo ko moom parce que du asaar rek nit ñu jël la teg la délégué de quartier moo tax bi nga xamee ne lii am na te affaire yi yéex affaire administration bi yéex depuis daaw ba ren taw bi ñu jël ko ñuy xamal waa ONAS ne leen Ouest Foire dañoo am cër ci réew mi ñoom itam parce que mënuñ lii chaque année lii mel nii te li koy faj passé wu 10 millions. maire bi ñëw na fi samedi bi mu fi ñëwee samedi indi na fi pompe ba la ngay gis mu teg ko fi bi mu fi indee pompe bi xamal nañ ne ko fii dañ ko war a kiire moom itam xamal nañu ne bind na administration bi mais affaire administration dafa yéex mais man lu ma gis-gis naa ne vraiment li nga xam ne nii li koy defar bëriwul ay kiiraas ay yooyu moom itam war nañ ci jéem mën a dimbale waaw ah, parce que am na yoo xam ne jërul xaar état. am vraiment war nañu cee parce que Ouest ni dëkk fii vraiment chaque année